yoo xam ne 2 millions yi jënd nañ ci lu toll 4000 masques masques yooyu nag artisans yi nekk ci dëkk bi ñoo ko ñëw 6000 masques bi moom lañ commandé mi ngi nii moom lañ bëgg a boole yëpp tey ci àjjuma ji ñu mën a dem ci bërëb yi nga xam ne fii jullee àjjuma mooy jumaa yi jumaa bu ci nekk danañ la jox minimum 200 masques am nañ fa fukki jumaa ak ñeent yoo xam ne ñooy jullee àjjuma danañ jox tamit. ki nga xamanteni moy église bi 200 masques minimum suba fas nañ yéene ñeenti marché yu mag yi nekk ci dëkk bi ñu distribuer leen 4000 masques dimanche li des ci masques yi ñu séddale ko artisan yi actuellement ñu ngi waxtaan ak IEF danañu jot euh, li nga xamante ni mooy limu élèves yi fi def examen yépp ñun mairie danañ jël engagement pour élève bu ci nekk ñu jox la benn masque ñu jox la ñaari masque wala ñetti masque li ko waral mooy élèves yi def yi nekk en classe d'examen yi ëpp Mbàkke la ñuy ñëw te boo xoolee quatre-vingt pour cent élèves Mbàkke yi ñu ngi jóge Touba ak ci yeneen commune kon élèves yëpp ñun la ñuy fekk si kon nag li war rek mooy jël les dispositions yi nga xamante ni buñ ko jëlee danañ mën a sécuriser xale yi ndax buñ leen aarul mën nañ comme nañ ko kon li nga jëm ci masque yi dañ ko ak li nga pour à la disposition de l'IEF ñu ànd ak moom yóbbu ko ci école yi duñu continuer sensibilisation continuer aussi ci ci mais aussi di gën a jege askan wi aussi di gën a waxtaan ak ñoom parce que le fait nga toog ak ñoom rek di waxtaan ak ñoom bokk ñoom la situation loolu dañ leen rassurer ci lu bari. daje bi amee woon ci mairie bu Mbàkke Abdou Mbàkke Ndaw di leeral ne kon mbébétam weesuwul dolli kaaraange ñi nga xam ne ñooy dem ci jaay yi waaye it gone yi nga xam ne dañu war a dellu ci école bi ñaari fan ci weeru juin. kon tey danañ jox jumaa yi suba danañ jox marché yi dimanche. danañu jox aussi ñi nga xamante ni ñooy artisans yi am na beneen programme bu ci tegewaat aussi xam naa dès la semaine prochaine nañ ko lancé donc euh, une valeur de 1 million 800. cent yoo xam lépp détergent lay doon moom it day fuñ masque yi jaaroon dafay jaaraat ko defee pour pérenniser liggéey bi kon feeg mbas maa ngi fi daal ñi ngi continuer du jour au lendemain je teg des stratégies pour accompagner les populations ci communication ci accompagnement ci lépp. masque yi fekk si ay yego yu nga xamni mom moom maire bu Mbàkke jotoon na ko def ci ay ndimbal ay dund yu nga xamni kon jotoon na ko jébbal sëriñu daara yi ak ñenn ci njabot gi. voilà xam nga li présentiroon nañ ko ba tax na le 23 mars ñu jëloon dund bu doy jox ko serigne daara yi nek ci biir dëkk bi muy donon ceeb ak diw ak suukar ak euh, diw. Kiloli, mairie de Mbaké, a une valeur de 15 millions. 4 millions de dollars ont été mis 1 million de dollars. Nous avons un comité départemental pour accompagner le fonctionnement. Mais aussi, 10 millions de dollars ont été mis en place gel, cotol, gants. Et ce que vous savez, c'est comité départemental pour les gays. Nous avons un état bi nak commencé na di joxe li nga xamanteni moy dund bi ñun procédure yëpp épuisé nañ ko paré nañ ci liggéey nañu ci comité de ciblage yi ba paré nañu ba inshallah allah rabbi validation yi dañ ko def mardi ñi ngi xaar nak vivre yi am na yu jotta ñew mais complément bi lañuy xaar mu ñew ñu valider le préfet valider ñu procéder à la distribution fofu it mairie bi it am na une importante quantité bu mu bu mu mettre à disposition nga xam dañuy xaar rek bu état cédé les pare ñi nga xamante wax dëgg yàlla amuñu mairie bi mën a ñëw en appoint pour accompagner population yi pour que ñoom it ñu mën a am ndax jamono ji moom métti na métti goo xamante ni looy def rek dafa war a gaaw